la kon maa ngi woon ci ay bis gi génn ci alwaqtu fi xayaatil muslim waaw waxtu wi ci dundug jullit bi xam ngeen ne àdduna temps dafee am solo yeewu ci temps it baax lool lool ñuy def bu weeru janvier duggee ñu jël temps jotoon nañ cee am lu mat ñetti waxtaan ñetti waxtaan yooyu mi ngi doxoon ci diggante introduire jataay bi waaye dugg ci alxuraan gis yitte jim jox temps dugg ci sunnas yonent bi bu ñu ci noppee gis yitte jim jox temps su loolu mokkee boo doxee ci mbedd mi di gis ni nit ñi wacce temps da ngay tiit nun léeg-léeg nit woonu téléphone bu seetloo sax mi ngi xam ne euh, ñi ngi bëgg a sakkanal temps bi léeg-léeg nit yi seet si la kër ga walla yooyu walla mu dajeeg yow ci rajo bi bu defal attention day defe ne amoo yitte ndax Sénégal dañoo bëgg nga bàyyi li ngay def def leen ñoom loolu sa law léeg-léeg ma dem ci marché bi di ñibbisi nit dajeeg yow na la bëggoon naa laa gis dama benn question léegi dangaa war a taxaw bàyyi li nga dox doxi lépp tontu ko ci question bi sinon baaxoo wala amuloo yitte mu ne xamul fu nu jëm <laughs> kenn mësu ko gis rek <laughs> waaw bu ko defee boo ko rombee jàll wala nga ne ko kër gaa nga ne mu ne kii dafa amul yitte aha fu mu wax ci ne diw de dañoo tase maak moom mu koy nuyu faalewu ma sax fekk mbir ma demuut noonu waaw commentaire yooyu léeg-léeg mu am ci pinc bi waaye xam nga ne bu fekkee sëñ Mbàkke dafa ñëw fi bëgg enregistré ñaari waxtaan bëgg fee jóge dem ci benn causerie bëgg fee jóge dem ci nangam nga stopé ko interpellé ko ci buntu rajo bi di ko laaj waxtaan moom waxtaanoon te doon ca wax ay ñaan nga bëgg mu digte la ñaan gi vraiment savoir vivre foofu day xaw metti ngeen jéggal ma temps maa ngi woon ci ni ko alxuraan joxe yitte tudde ko ay saar waaw wal fajiri temps la ndeysaan waaw wal leyli la wan nahaari temps la wadduhaa temps la wal leyli ida saja la wal asri temps la yooyu temps ñoo siq nit ki te bi nit ki juddoo sunu borom daggal na ko ñaata temps li fara am bu jeexee mu dem fa gaa ya tëdd tëdd waaw ñu jeexal ñépp ñu nga tëdd ñee nga yoof ñee nga tëdd Baxiya ca tuuba ñee nga tëdd ca Madina ñee nga tëdd Tiwaawan Xalxuus ñi fu ne ñu jeexal ñëpp ngi tëdd nun nu jeexalugut nooy doxee li waaw ndeysaan nun ñi ñun ñi jeexalagut ñooy doxee li te kenn xamul kañ la ñuy jeexal ndeysaan léeg-léeg kenn jeexal rek ñu ne wax diw man ñu ne diw sàngam ndeysaan loolu nga xam ne nag mooy temps bi la yàlla jox bul defee ne dañ la ko jox rek gis nga football quatre-vingt-dix minutes la Ablaye Diaw waaye quatre-vingt-dix minutes yooyu ku ci ne daa am loo ciy wut football bu rafet ak bii wala bii sans football bu rafet yaa xam waaw ndax pëleen pëleen noonu nañ ko ban bii moo gën a rafet ci bii mu ne bi arbitre accordé àdduna daa am lu ñu fi wut si lu dul nelaw lekk naan takk wala ñu takk la du loolu moo ñu fi indi tabax kër kaar la ci kaw ba ci suuf li nu fi indi bokkut ak loolu léeg-léeg nit ne nag ba temps ba jeex mu dem tëddi ndekk yóbbu dara waaw ndekk yóbbu dara tabarakàlla suñu waxtaan waak soxna Awa Njaay ci tëngéej te dëkkoon ci waaka am nekk ci Ali rekk ndeysaan machine rongañ ba maanaam mu xëm <laughs> waaye wax naa dëgg de ñëw ci àdduna li la fi indi nekkoo ca xanaa nekk ci leneen ba malaaka mi ñu ne la kaay wuyu kaay wuyu it ndaw ku bu buñ jële ndànd indi ko Dakar <laughs> ndaw ku ndaa buñ jëlee ndànd indi ko Dakar dugal ko ci banque bi ne ko loo fi jël yaa moom am nga nag vingt cinq minutes loo fi jël nag yaa moom mbokk yi ndaw ku ndaa bi dugg ci banque bi bi mu jógee li ko njëkk a yëm mooy ni ñu defaree banque bi ci biir bureau yeeg verre yeeg fi nit ñiy toog ak montre bi ñuy xool bu di appeler nit ñi yooyu ca la nekk waaw yooyu ca la nekk ne ci comptoir yi ah fii de moom tubarkalla lii de ko ko sa kër meloon ah fii bakkane na waaye ndaw ko ndaa ba na ci loolu rek ba àgg ca fauteuil bi nga xam ne ci la gaa ñi toog mu were nga fauteuil bi were affaire bi neex mu ne non <laughs> kii fi directeur fi wàcc nooy na ndeysaan seetet moom ba mu yàgg mu tàmbalee agsi ci xaalis bi lépp ñu ngi ko ko tegal nag dix milliards ngi ne ñu takk cinq milliards ngi nii ñu takk takk takkaa yi tabarkal mu tam na ci ci pièces yi nekk ci dërëm yi naan laa ilaa bii xanaa nogay mësu koo laal waaye bii dërëm a rafet lii de ko ma nu ma ko gëm ba mu yàgg mu jóge ci dërëm ya dem ci ñaar dërëm ya naanaa <laughs> lii de mooy ñaar dërëm ya moom la gaa yi wax gone yi jóge ci ñaar dërëm ya dem ci juróom <laughs> astafirullah kenn mësu koo gis ndaw kundaa ba ndaw kundaa bi bi muy tàmbalee agsi ci cinq cent yi vingt cinq minutes ya jeex montre ba nekk mu tiit nag bi mu tiitee départ fa di génn ndax bunt yi dañuy dañuy fermer seen bopp te kon ci biir lañ koy ferme mu muy daw romb xaalis yi bi fi mu rombee nag nday euh, dix francs dix francs yi mu tibb ca <laughs> mu ci doon tibb dix francs yi tasaaroo mu am ci juróom-ñetti dërëm mbokk yi xoolal kii ni mu jeexale taxam bi rek te kat léegi nun ñëpp la yéem waaye daanaka nun ñëpp ni lañuy doxal banque bi mooy àdduna temps bi mooy dund gi liñ ko jox moom mooy dund gi loo fi jël nag yaa ko moom loo fi jël yaa ko moom waaw mu jeex tàkk léegi est-ce que nun nii waa ji def nekkuñu ci noonu waaw nekk fi rek ba montre bi sone say bokk takk say tànk ne la tëddi jot na takk say loxo ndeysaan sàñ sa paxi bakkan daal di yenu ginnaaw bi ñu la sangee ba jullee la dem fu sori gas am pax dugal la ci biir ne tëddal fii nga xaar noo yow loo yóbbaale hmm? temps bi jar naa xool de kii kii lan la yóbbaale li nu fi tax a ñëw muy risaalatul insaani ala al ard waaw mission de l'homme sur terre def naa nu le professeur li nu fi tax a ñëw mooy samp fi jàmm nun ñëpp dañoo war a songu jàmm xëcc ko indi ko fi door a dem loolu ñu fi tax a ñëw lan mooy jàmm san sunu mbokk ma góor ga ci yoof yàlla na ko yàlla yërëm waaw ne réew mi am na jàmm yal na yàlla yokk jàmm ji amin jàmm mooy ñu fexe ba nit ñu sàmmal leen ku ci nekk la nga gëm sàmmal leen seen bakkan sàmmal leen seen alal sàmmal leen seenum der sàmmal leen seenum xel juróom yi pour samp ko ci àdduna mooy suñu mission ñun ñëpp waaw fexe ba duñ lor kenn ci sunu làmmiñ duñ lor kenn sunu loxo duñ jur ko leen di lor duñ am mbokk mu leen di lor ala kulli xaal tàng noonu ci sunu dund gi sunu boroom ba mu ne wadduha dafa gin ci yoor yoor yoor yoor benn temps la boo xam ne peut-être ay onze heures onze heures et demi yoor yoor bu digg yoor yoor bu góor bi ñëw na bu jigéen bi neuf heures et demi lay tàmbali ba heure boobu ab temps la moom it bu am solo boo xam ne li ëpp ci nit ñi ci lañuy nekk ci liggéey yi ku ci nekk nekk ci dara moo tax ku mu fekk nekkoo ci dara bu la ko sa borom waxee bu la ko waxut jéppi la yoor yoor daa war a fekk ñépp ci dara moo tax ñu daan fekk màggatum yoor yoor ñu di ko julliloo ndax du du du tala dugg ci këri jàmbur yi ngeen baal ma màggatum yoor yoor nga xam ni ñépp liggéey nañ moom nag liggéeyiwut ndax dafa màggat mu am temps dugg ci kër yi dem ci ànd njaay wax koy baat dem ca madame Mbay Sala wax koy baat dem ca keneen dem ca keneen te baat yi mu leen di wax léeg-léeg baat yi du doon waaw góor muñal toogal sëy déedéet day ñëw ca kër ga naan ko waayu sa photo yi ko koo changer diw de gis naa ko démb ca nangam diw de moom xam naa nangam waaw mbaa xelam nekkul ca ñaareel yooya la màggatum yoor yoor di waxtaan moo tax sunu borom tabaaraka taala ki mu yónni woon wutal màggat yi programme mu yoor yoor tudde ko jullik fay naange waaw màggat mën na ci di julli ba tabarkàlla ndax du dem ci kër kenn ndax màggat yoor yoor yi léeg-léeg seen message ci kër yi du baax ngeen baal ma yéen màggati yoor yoor yi alakuli xaa yoor yoor a ngoog bu jotee nan fekk ñëpp ci liggéey na fekk ñëpp ci liggéey allahu akbar heure boobu du heure fo heure boobu du heure tardé heure boobu du heure xëy daa war a fekk ñépp ci liggéey yoor yoor ñi liggéeyul bañ a ñi liggéey ndax bureau yi du waxtaanukaay yi bureau yi du jaayukaay yi dem sa bureau it di di di defaru ba yoor yoor nga tàmbali liggéey baaxul ci waaw dem sa bureau toog di defaru ba yoor nga tàmbali liggéey baaxul liggéey dañ koy jox àq mu jox la àq mas naa dégg benn woykat bu ñu wax coon yal na yàlla yokk ko wér mu ne lu waay def di ca torox keneen tedd na ca waaw lu waay def di ca torox keneen tedd na ca wallaay ndeysaan liggéeyu noonu danga koy fonk mu fonk la bu ko xeeb mukk ndax boo ko xeebee def lay xeeb bu nu yàlla baaxee bañ dem ba ci mois de mai ni ñu ko daan baaxoo ji defee bu nu ñëwee ci liggéey daanu ko gis ndeysaan waaye liggéey am na lu ko métti lool professeur ci penc mi liggéey ak am lu ko métti doléance ma nga ca kanam incha allah yoor yoor ngoog mbokk yi di temps bu am solo waaye am na beneen temps bu yàlla teg ca yoor yoor mooy wal layli isaa mu ne wal layli isaa saja laylu guddi am na saar wu ko tudd yàlla dugalaat na ko fii dugal ko ci wal fajrit te mooy wala yaalin ashr waaye sunu mbokk waaye mbokk yi kon sunu borom daal di indi weneen saar muy wala asri tudde ko moom tam temps innal insaana la fi xusri nit ñëpp perte nañu lu tax mu ne seen temps la ñu perte waaw seen temps la perte def ko ci fu ko jërut gis nga nun suñu amee benn sànce temps bi biy def rawatina nag sànce yi dañ koy gas ay pax baare koo ki yëf dem bàyyi ko fa waaw dañ koy gas ay pax baare koo ki yëf dem bàyyi ko fa bu nu xëyee kocc koccal ca dara waaw naajee xëy teel wàcc duñ liggéey samedi duñ liggéey dimanche duñ liggéey guddi waaw dégg naa barki démb ci région yi kuy coow coow lu mel noonu waaw lay wax na dëgg sànc ba nee am na fukki waaw ma nga fa rek kocc kocc bàyyi mu nga liggéey danoo waroon bu ñu ko tàmbalee ñu am ñaari équipe équipe bu leyl ak équipe bu nahaaru équipe bu leyl nahaaru bu ñu liggéeyee ba dix jot ñu raxasu wàcc dem su noppalu ji équipe bu leylu tàmbali waaw loolu fuñ ko def lu mat weer lu ñuy def mën naa noppi waaye nun ñëpp li ëpp ci nun onze heures la ñu xëy kocc kocc di sept balaa jot nu wàcc da dem ñibbi duñ liggéey samdi duñ liggéey dimaas ku am ngénte bàyyi liggéey ba ku am céet bàyyi liggéey ba ku am dëj bàyyi liggéey ba yàlla nu yàlla yërëm nun daal yàlla nu yàlla yërëm rek tabarkàlla <laughs> kenn mësu koo gis boo jógee bay liggéey na tacc ci tali bi oto yi na tacc doo dem doo dikk waaw doo dem doo dikk tabarkalla sunu borom ne wala asr daal ne innal la fi ci temps la tabarkalla te sunu borom saa bu giñee ci dara am na lu nekk ca loole ni ma ko waxoon ci bind yi weesu ndax bàyyi loo loonu xel ci euh, wal layli bàyyiloo na xel ci nahaar bàyyiloo ñu xel ci fajir bàyyiloo ñu xel ci layaal asr bàyyiloo na xel ci duhaa bàyyiloo na xel ci al asr waaw wal asr giñ naa ci temps mbokk yi bu yomal xiyaamee maa ngi ñëw kon ci sunna si yonent bi lim def ci temps bu yomal xiyaamee dafa am ñeenti question ñu tuddee al asila al arbaa al asasiya waaw quatre questions yoo xam ne yu fondamental la professeur yoo xam ne yàlla du ni kenn ne ko laajal ma diw mukk moom borom bi tabaaraka moo koy laajal boppam Muaas ibnu Jabal moo ko nettali mu ne lan tazuula xadama abdin yowma alqiyaama xata yusala an arbai xisaal an umrihi fiima afna an shababihi fiima abla an maalihi min ayna ktasaba wa fiima anfaqa wa an amalihi ilmihi ma saa amila bi jërë ngeen jëf mbokk yi bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 nu ànd ci jotaay bi ñu amal lundi di ko amal mardi muy tàmbali huit di jeex dix heures sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ngi nii taxaw yor seeni kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci waa firiñ fàncal ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu sponsor yi C3S mi tàngal bégeeg tabarkàlla pënsëg ndoxum waaloog yi ci aju woo yëpp waaw ak ñi bëgg a ñëw <laughs>